ak a ñaanal ak a fàttaliku jëmm ju tedd jooju nga xam ni lislaam dootu ko fàtte waaye yoonu murit dootu ko fàtte muy sëriñ Abdoul Ahad Mbacké borom gëm ak wóolu ak yaakaar sëriñ Touba rek laa ko def mbokk yi ñëw fii nag eh, ci Daaru Xudóos ci kër sëriñ Abo Mbacké moom sëriñ Abdoul Ahad waaye nu fekk fi mbooloom Mafatul Bisri waaye nu fekk feet soxna Ami Mbàkke moom Serigne bu ñu di leen di ñaanal sunu borom guddal seen fan lool te wéral seen yaram kon dafay mel ni ñoom télé bi seenu télévision la macha allah euh, bi nu ñëwee fekk nañ fi jëwrin Serigne Youssou njaay moom la Serigne bi jox kàddoom mu fas yéene yëkkati kàddoom ci turu euh, soxna si waaye ci turu sëñ bi euh, comme ni ma ko waxee léegi kon Serigne Youssou ma bàyyi la nga yëkkati ay kàddu ginnaaw bu leen ziaree ñaanal leen sunu borom dafa leen tawfiq waaye lépp luñ fi ñaan borom jotale ko sëriñ Abdou Lahad Mbacke kon sëriñ Youssou bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. Mountakha Mbacke di ko ñaanal suñu borom may gudd fan ak wér yaram nekk doon lu leen koy ñaanale sëñ Sidi Mbacke muy xalifa Cheikh Abdou Lahad Mbacke ni nga ko waxee nag ñu ngi ci fii ci kër Cheikh Abou Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad Mbacke moom nga ne moo waral bis bi ñu fekk fi soxna maam yi Mbacke mu Cheikh Souhaïbou nga xam ne diggante Sëñ Abdou Lahat ak Sëñ Soy bu moom kenn mën na ne lépp benn la kon bu nga ñëwee fii fekk soxna maam mi kon mën na ne maanaam dañu fay fekk kër goo xam ne dañu fa fekk Sëñ Abdou Lahat ak Sëñ Soy bu comme ni ko waxee nag bis bi tam ñu ngi koy ñu ngi ko màggal si nga xam ne a màggale ndax borom bis kenn ku ne xam na lii nga xam ne maanaam moo ëpp si ay jëfam ak ay waxam alxuraan la kon yàlla def ne bi ñu xëyee jàng nañ fi ay alxuraan wàcce fi ay kaam yu bëree bëri ak ay xasaayit ndax borom bis bi ku tudd ku ko tudd ku ne da nga tudd alxuraan ndax ay waxam yëpp daanaka si alxuraan lay lay dellu ay jëfam tim ci alxuraan lay dellu. kon ñu ngi fii si kër si la Abdoulaye Mbacke daal ñu koy màggale si kër yëpp ñu koy màggale fii di gërëb ñi nga xam ne maanaam ñoo leen bokkal daay liggéey bi muy daara ma fàttali Bichri ak fédération yi nga xam ne ñoo am na ci moom li mel ne kuréelu Mawahibou Nafih ñu ngi leen di sant seen teewaay ñi nga xam ne maanaam mooy taxawaayu daayira bi yëpp noonu. xam naa kon daal kàddu yi moom ak cant rek ak ngërëm daal waa kay jërëjëf Serigne Youssou macha allah am na solo tubaarkàlla kàddu yi am na solo bi ñuy eh, daaneel suñu kàddu rek eh, macha allah Serigne am ñëw na eh, Serigne am bokk ci ñi nga xamante ne fii la ñuy nekk ci kër gi macha allah sëñ am comme niñ ko baaxoo defee rek nga xam ne bi ñu ñëwee bi ñu xëyee ba tey ñi ngi siyaare njabootu Serigne Abdou Lahad gi yàlla dogal ñu ñëw fii nga xamante ak mooy sër kër sëñ Abo Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Mbacke waaye ñu fekk feet soxna Ami Mbacke moom Serigne Chouaïbou kon Serigne am dama lay jox rek kàddu gi su ko defee nga indi say kaddu incha allah ci ziar bu am solo bi. Koso ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci liggéey bi euh, kàddu yi sëñ Yuusu mii rek mate na ko sëkk ndax mooy jëwriñu daayira Mafatihul Bisri euh, fii ci kër Serigne Serigne Aboum Cheikh Abdoul Ahad am na fi daayira Mawaahibun Naafi' ñoom ñoo ŋànk liggéey bi di ko liggéey te muy jëwriñ ji ñu lay nuyu bu baax di nuyu ñiy seetaan As-Samadiyya yëpp ndax yaakaar naa télévision bi télévision murit yëpp la waaye rawatina nun waa kër Cheikh Abdou Lahad rawatina waa kër gi ndax da ngeen fee ñëw fekk si fi sëñ Abo te sëñ Abo rek doy na sëkk mooy cërub sëñ bu ci Cheikh Abdou Lahad donte sëñ Abdou Lahad njabootam gi li ci ëpp da koo jël jox sëñ bu mu defar leen def ci ñoom li mu bëggoon waaye nag sëñ Abo moo ci am tawféex yi mu tudd ko sëñ bu wëlbati ko jox ko ko mu def ci moom alxuraan def ci moom xam-xam kon sëñ Abo mooy sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Samad di sëñ ndax dama ko mos a waxtaanee dama ñëw mos a def plateau sëñ bu mu ne ma sa sëriñ de lim xam ci sëñ bu suñ ko neexalee ba mu wax ko ñun ñi ñëpp kenn xamu ko ci te takkoo gu sëñ Abo takkoo woon ak sëñ Souhaibou boo ko waral loolu moo waral ci ak bëggam moom sëñ Abdou Samad tax mu jàpp ne liy doxal yoon wi dëgg bokk na ci communication. loolu moo waral mu ubbi site bi ngir nit ñi man di ci jariñu te gis nañ yéene jëm ci doxale ndax lu jiitu màggul Sëñ Abdou Lahad kum xam ne xam nga dara ci Sëñ Abdou moom jug na de fekke ji la ngir bëgg nga wax ndax dama ko naan damay faral di dégg ñaari baat yoo wax ne sëñ Abdou ñaari baat yoo wax ne ne Cerno mu ne ma dañuy sama royukaay dañ ma dama dama leen di ci lu bari te loolu doxin wi wane na ko moom mii ngeen fekk si nga xam ne sëñ son bi da ko jëlaat muy ab cëram ci sëñ Abo daal di koy indi fii ci kër gi dëxal ko fi léegi laa koy wax ci bi ñu toogee fii te ba noppi moom it mu bokkaat ak sëñ Abdou Samad lépp wëlbatiku sëñ Abdou Samad it di xaritam ndax soxna si man xam naa ne ci mbooloo mi boo fi xoolee di nga fi gis kook sëñ Abdou Samad ko meññ tuddee ko ko ba noppi jox ko ko te loolu lu néew la ci muy jël nit rafaatale ko soxna maam ami moom nag day jàmbaar jàmbaar ji mooy léegi laa koy wax bi ñu toogee fii balaa jug fii mu toog ñëppay dem tëri ba ko fi bu ñeewee itam fekkaat ko fi mu toog su fekkoon ne ab liggéey day am wàcc dañuy wax ne moom ba mu wàccee yàgg na ndax defar na ay nit ñoo xam ne su toogoon bitim réew lam bëgg danañ ko def ndax lim li li li ko sama borom xamal lépp ci wàllu bernde ak teraanga ak maslaak nit def na ko ci ñoom waaye ngërëm li ko sëñ soñ bu di wutloo ci sëñ abo waxtu wuxee day jàpp ne tey ji la ci door xëy loolu moo waral muy guddee tëdd di teel yow suñuy séddale day jóg taxaw bu ñu togg mu jóg taxaw looy def mu ne ndax loola baax na kon sa yëpp samat xam na ni kër gi kër sëñ Soñe bu la loolu moo waral mu yebal fi télévision bi te it lu jiitu loolu waxtu wu nekk ak màggal gi moo ko sëñ yeboo ñoo koy ànd ba mu jeex kon noon ngi koy ñaan moom Mbàkke mu yàgg fi lool te yàgg koo teewee ndax day suñu wéetal ci bëccëg rek maa ngi koy wax soxna si bu toogee déggu la dina la woo xaarul yow nga woo ko wala nga jotati dina jotal sa digganteeg moom ba da ngay am kersa loolu dafay yokk rek ci ne maanaam moom bët bi si ñëboo di xool rek lay xool ndax kenn ku ci nekk jàpp ne ne mooy sa waajur moo war a doon itam sa wéttal ci lépp ku ciy def bis mbaa nga xewle dara dana defal ay ndabi teraanga woo ay nit jox leen ko ne leen na bu ngeen demee lu ngeen ci teg ci kàddu lu mu gën a rafet rek xeeb naa ko loolu defal nañu ko nun ñëpp am na ñoo xam ne dañoo dem ba am kersa seen digganteeg moom ndax moom bëggut a feeñ lii maa ngi koy door a gis ci subaak léegi fii mu toog boo ko waxee mu ne bëggumaa feeñ ci dara ndax li muy wut mooy ngërëmul sëñ Tuubaa li mu bëgg rek mooy na ñëpp na ñëpp xéewlu na ñëpp nekk ci jàmm na kenn bañ am benn problème waaye nag xam gum xam ne télévision bi télévision la ndax fii am na fi ñoo xam ne ci kër sëñ son bi lañ jógee ñu jox ko ko am na fi ñoo xam ne say sëñ Abdou Samad am na ñoom bu ñu ko ko joxoon soxna maam ami rek a ko ci doy ba moo fii la daan nekk ci néeg sëñ bi ak sëñ bu ñun bi ñuy doon gane ne fii xàmmee woon kër sëñ Abdou Samad ak kër sëñ Chanyo ak kër sëñ Abo fa lañ daan roote ji ndox dañ daan dem sax mu téeñu fa ndax xam mu xam ne ñun ak sëñ ak sëñ ak sëñ moom ak sëñ Abo benn lañ kon ku ku jokkoo ci sëñ Abo ku ne ci moom nga jokk man mii di wax rek moom a njëkk yóbbu Makkatal Mukarram te bi mu koy yóbbu dafa maa wax ne damaa bëgg a mottali sama yéene ci sëñ Abo ci yow ndax bis laay def émission mu gis ma woo soxna si jël ci sama numéro woo ma ne ma damaa bëgg ñëw ndax dangaa bokk ci ñun yow ne ma du ma la bàyyee kenn te du la seetaan dugg ci biir génn mbubb jox ma ne ma dama bëgg nga sol ko damaa bëgg ngay ñëw fiit ma lay wax li ma xam ci sëñ Tuubaa nga di ko wax ndax yow damaa war a sot ci yow kon noo ngi koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te moom mii ngeen fekki sit ngeen ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ba ndam yi mu bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp mu defe ko ñu ngi ko soobee yow ñu xam la bu baax ci liggéey bi ca Bichri TV ba tey ak média yi ko jiitu Lamp Fall lu mën a doon rek taxawaay bii nga mës a ci yoon wi ak yaatal gi ak liggéey bi ñoo ngi jégalu baax a baax kàddu yi wasalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Am Diop macha allah Touba TV eh, ñu ngi lay sant bu baax a baax yow di la gërëm ci jot gi ak jotale gi macha allah kàddu yi mënta ñàkk ndax lépp lu rafet la eh, te borom xam bu sell day wax ni lu baax fu mu ne ñu baax ñaa ko fa yóbbu waaye bu fa desee rek koy rafetal moo fa nekk kon yàlla na suñu borom defal la tawfiix bu baax a baax eh, te defal ko soxna si ndax li ngay wax rek bi ñëwee ñun loolu lañ gis tey boo fi ñëwee da nga jàpp ne sax ci Baay ala yi ne ci kër gi di defar la kon loolu moom mooy wane ni te saydul xawmu xaadimuhum ki gën a sangu ci nit ñi mooy ki nga xam ne moo leen di liggéeyal kon ñi ngi ñaanal bokk yëpp ak bokki téléspectateurs yi xam naa ne fii moom day mel ni sax mooy doon sunu mujjub jotaay eh, ci màggalu Serigne Souhaïbou kon ñi ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala nu fekk ko ay at yu bare bare bare waaye di ñaanal Serigne Abdou Samad nag sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko yaakaar naa màggalu Serigne Abdou Lahad ren ndaw ñi nga xam ne ñoo judd te amaguñu ñeen fukki at nga xam ne fekk ñu fi Serigne Abdou Lahad ñëpp tey xam nañ kan mooy Serigne Abdou Lahad ci jikkoom ci aw melokaanam ci lim daan doxale ndax lépp lu mën a doon rek sëriñ sëriñ Abdou fexe na ba jëli borom xam-xam boo xam ne danaan sëñ Ablaat nee na ma wala sëñ Ablaat ma yoroon wala sëñ Ablaat waxat na fi nangam loolu di lu am solo loo xamante ne sëriñ bi initiative boobu la am kon ñu ngi ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral yaramam mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp As-Samadiyya TV ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaar waaye di jaajëfal bu baax a baax am solo yi nga xam ne fépp fu ñu nekk ñoom ñooy ne sunu ginnaaw waaye ñun ñooy tax ñoom ñu gis ñu te ñoom kenn du leen gis ñoom ñu ngi leen di sant téléspectateurs yi nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi wane seen mbégte ñu ngi leen nuyu baax di leen jaar di leen ñaanal tawféex bu ma limee day am ñu ma bàyyi waaye maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di ñaan